2020 il a sorti ce morceau lii boo ko gisee qu'est-ce que qu'est-ce que cela vous fait il vous remercie il dit merci papa. oui parce que xam nga dëgg rek mooy dëgg. boo déggee mooy. d'abord qu'est-ce que cela vous fait. mais ça me fait beaucoup de bien ça me sama njaboot sama njaboot lañu quelque soit soient les dissensions yi mën a am que moom mën na def lu nekk mais mënul dagg buum bi nga xam ni. moo tax man ma nekk man je son père et mes enfants bàyyiwuma leen ci keneen mu defar leen dama seet ku nekk li nga xam ni moom la la yàlla may ci talent ma liggéey seeg yow sa biir sama biir kër ba ku nekk nekk loolu wutloowuma leen xaalis dama leen wutloo ñu nekk ay nit ñu mat ay nit góor ak jigéen mag ndaw ku ci bañul loolu moo tax moom mu nekk musique musicien c'est pour cela qu'il nous remercie. c'est pour bu demee nag ba tollu fii di wax merci papa ça veut dire que quel que soit ce que les gens peuvent dire moom xam na qui je suis par rapport à lui du ma dara. mais que je suis son père. Alors, très